maaleykum mbokk internet yi euh, tey ñam mbégte dalalaat sunu xarit euh, Cheikh Ousmane jaago fii ci Sunugal 24 euh, tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ci yeneen ponk yoo xam ne jotuñ ko woon développé ci bee paase bi fi jaaree balaa ñuy tàmbalee dañuy joxe dañuy jox Cheikh Ousmane jaago mu nuyoo mbokk internet yi koy seetaan. aouzu yaa himmata seyqi xuduri lana bi hada almahdari wal taatafi bi nazratin taati lana bi zafari alhamdulilah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna fépp fu nit nekk rek maa lay nuyu ko si nekk sa tur ak sant di la nuyu yow Seydi Top di leen di wax ne bismillah si ëtt bi nga xam ne dalaloon ngeen ñu fi ngeen dalalaan ñu fi tey te bu neexoon yàlla loolu du am ndax wér-gu-yaram bu amul doo tal yenn yi kon ñu ngi sant yàlla si loolu bu baax di la wax na bismillah. Cheikh Ousmane ñu bàyyi la nga waat euh, mbokku askanu internet bi lay seetaan kan mooy Cheikh Ousmane Diago. yaakaar naa topp Cheikh Ousmane Diago waxoon nañ ko fi gannaaw kay dafay fekk na inna faati zikra alquran mu ne fàttaliku am na njëriñ bu taxutoon lool duñ sa jaaraat fenn rek mooy sama dëkkuwaay mooy kër ma jibeel foofu laa juddoo foofu laa yaroo foofu laa jàngee. ba am shahada ibtidaa yi nu ma ko waxee woon foofu laa jàngee ba am shahada i'dadiya daal di ñëw Kaolack am fa shahada sanawi maanaam baccalauréat laxas dem jàngi ay téere yu fasantikoo si ay borom xam-xam yu fasantikoo si ay kilifa yu fasantikoo lii mooy sama jaar-jaar mu jigéen nag may ñëw di jàngale dakaar ak dëkk yu fasantikoo lii rek ci laa mos nekk. Euh, Cheikh Ousmane jërëjëf euh, ñu jàll ci waxtaan bi song ponk bu njëkk bi. mooy maanaam ci wàllum seet ñu gis ne euh, seet xar nga ci lool ba nit ñi diñu diñu ko diñu diñu diñuy laajte say mbir tey ñu bëggoon nga wax ñëw yow sa seet ci lan ko ko tënk seet su ma ko su ma si xarañee duma ma si gis sama bopp ndax loolu ndimbal yàlla rek la bu yàlla dimbaliwutoon duñ si mën a am ndam bu neexoon yàlla biñ tombee mu lëndëmal bunt yëpp te su boobaa du sotti kon lépp luñ mën a def rek yàlla la neex seet yàgg naa la kay wax na la ñetti façon rek laa koy def mooy damay seetee ram la expliqué woon naa la fi ne la ram la xam-xam la boo xamante ni Idrissa moom moo ko fi andi si ndigal loo xamante ni yàlla moo ko jàngal Jibril ba mokkal ko dóor Jibril daal di ñëw fekk Idrissa muy doxantu si tefesu géej gi bi mu ñëwee rek oo ko jaar si turam Idrissa na ko yow foo ma xamee ak noo da ba xam na man Idrissa laa tudd jibril na ko maa la xamee si xam-xam bu ñuy wax xel mu ram li yàlla nag moom ma jàngal ñëw na pour ma ñëw jàngale ko ndax ba nga ma jàngale ko mun na ko jàngal ma ñu toog si tefesu géej gi ñu tomb fukk buntu juróom benn di waddal ay doom ba mu des ñeenti buntu mu mokkal dur moom Idrissa après jibril na ko léegi na dama bëgg nga wax ma malaaka bu ñuy wax jibril fan la toll si kaw jaww ji fan la nekk si jamono ji nii Idrissa bi mu tombee ba waddal ñeenti bunt yi nga xam ne si li ñu résultat wu doomu yi mu ne ko ah seet naa ko si asamaan gisuma ko seet naa ko suuf gisuma ko waaye bu nekkul kii ma jàkkaarloog daal dana ma ko jaax dana ma jaaxal trop mu ne ko tigi noonu la demee man la Jibril mu mokkal ko daal di dem si biir nitam yi moom Idrissa xeetam yi wax leen ne ñëw leen ma jàngaleen xam-xam boo xamante ni da ngeen si xam démb tey suba ndax moom si loolu la tënku bi loolu amee ñu toog. mu jàngal ko ay nitam léegi nag mun ne leen dama leen da laaj ngeen wax ma ndax yàlla am na ku mu yónni si jamono ji gars yi bi ñu tombee ñu ne wax yàlla am na ku mu si jamono ji nu mu tudd gars yi ne Idrissa ñu bari ci leen daal di gëm Idrissa te bu taxatoon loolu duñ ko mos a gëm ndax arab dafay faral di wax ne inna kasratal xawaariqi laa yunsiul imaanu fi qulubil jaahida bëri xarbaa sosu ngëm yàlla si xolu ko bañ waaye nit ñi nag boo leen wanee loo xamante dañ ci teg seen bët dañ la teel a gëm loolu seetu ram la la yaatu na mën nañ sa yaatu lu bëri am na lu ñuy wax seet ñeenti façon waxoon naa la ko fi lu ñuy wax naari yu hawaa iyu maa iyu turaabi yu te lépp nag mu ngi composé si lii nii si ñeenti yooyu ndox suuf ngelaw safara yow dafa am boo si doon am la ngay fekk ndax da ngeen composé ndax suuf ak suuf ñoo ànd tey bu fekkee ne dangay dugg si métier boo xam ne suuf la wala ngay dugg si jabar joo xam ne suuf la te yow nga nekk suuf sëy boobu du mos a neex bu dee réew moom ngay dem réew ma du mos a neex bu dee daa am looy lijjanti du mos a sotti yooyu ay mbir la yoo xamante ñu ngi koy xamee tamit si ñeenti façon yooyu noonu dañuy seetee tamit kurus kurus moom su fekkee na oo ngañu ne dama lay laaj ndax lii may dem moom dana am résultat wala du am résultat bu baax mën naa la wax na la téyel sa téléphone bul coupé ma jàng lu may jàng si kurus gi xëcc samay doom doom yi ñetti doom rek lay doon na ñetti doom rek doom bu si nekk am na lu muy jàngale beneen doom bu si nekk am na lu muy jàngale beneen doom bi si nekk am na lu muy jàngal si foofu dañ la si joxe résultat kon xusuus si yàlla wax xamante ne am nañ ko si duñ si gis suñu bopp waaye nag mbaax ak yàlla rekk la lépp dama kay delloo yàlla di wax na jërëjëf. Euh, Cheikh Ousmane euh, ci beneen ponk mu jëm ci wàllum euh, cat doon li sonal nit ñi tamit tey nii bu la bu nit ñëwoon ci yow cat jàpp ko nan ngay jëflanteeg moom ba loolu teggeeku ko. cat moo sonal ñëpp cat man na lay topp jëkkërte la. cat mën na lay topp liggéey të la cat mën na lay topp këyit la cat mën na lay topp teraanga të la sa wërsëg tëju loolu yëpp cat da koy waral yonent bi benn bés benn saxaaba dafa ñëw na ko waaye yonent bi man nan lay def ba mucc yonent bi ne ko téyel sa làmmañ yonent bi waxaa si beneen hadis ne man yadmanu lii maa bay na lexyayhi wa maa bay na rijalayhi admanu lahul jannata ku ma gaarantal li si diggante làmmañam ak ñaari tànkam yi man maa ko gaarantal ajjana kon loolu dañ nga siy déggee ne bu fekkoon ne def nañ lu yonent bi wax ndikoon cat du mosa sonal kenn waaye tey nit ñi dañoo mandaxadi mandaxadi goo xamante nii loo nekk ñu nekk di sa lijjanti di cawti cawti sa tur loolu mën naay dem ba téye sa yaram sa yaram fasu sa buntu wër sa tëju te sa wër sa tijjee ko woon nga dem ba si kanam gàllankoor yow am doo xam lu ko waral loolu cat moo koy def am nañ si nag tegtal yoo xamante nii dañ koy jëfandikoo ni ma la koy waxee woon mooy sungu fi xamante ni ñun ñuy bay boo bayee toolub dugub bu sa nduxum saxee boo sa teela tu jóg rek dana la yàqal lu bëree bëri bëri bëri dafa mel ne cancer si doomi aadama tey man nga koy tuddee ne moom mooy canceru gàncax yi am na tamit yoo xam ne dañ koy liggéey si bantu bele mooy li ngay balee sa néeg nga xam ne loolu setal rek lay jëriñ dañ koy bind mu ànd ak ay bantu bele moo xam lim bi ñu si soxla boo ko sangoo lépp lu mu fekk sa yaram da koy raxas te cat képp ku mu ci yar la yàlla dana la ubbil buntu wërsëg yu bëree bëri. Euh, jërëjëf Cheikh euh, Ousmane. ma jàll ci beneen ponk mooy li jëm ci wàllum wërsëg est-ce que tey am na càngat boo xam ne bu ko nit ki jëlee wërsëgam dina tijjeeku wërsëg allahu latifu bi ibaadihi yarzuqu man yacha yàlla mooy mooy wërsëgal ñenn si jaamam yi wërsëg lu am la laay jooda dañ ciy liggéey lu bëree bari bari si wàllu wërsëg nasrun min allahi wa fathun qariba alquran fu mu tuddee baatam dimbal rek yàlla la say teg yàlla nag moo mën a dimbale nit ñi wa in yansurukumullaahu fala gaaliba lakum alquran mu ne bu leen yàlla dimbalee amul kenn kenn koo xamante ni dañ leen mën a noot gis nga aaya yooyu dañ koy jël di ko jëfandikoo bind ko si adat bañ soxla nga sangoo ko yàlla tàggat sa wërsëg bi nga wërsëg dañ koy tàggat topp wërsëg dañ koy tàggat yaram dafa war a saf ak sangu wërsëgam di mën di tijjeeku ndax damay faral di wax ne boo amee tey sa fas nga bëgg mu daw daw bu gaaw ba mu nekkee moom nga koy tàggat ba mu baax wërsëg noonu la demee nit ki dafa war di tàggat wërsëgam sinon lu bëri mën na koy yàqal ba nu mu war a dem lay dootul dem lay alquran moo ñu wax leen muy aaya boo xamante ni dinaa si liggéey façon liggéey bu nekk wala qad karam naa bani aadama wa xamal naa fi l barri wal baxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin naa xalaqnaa tafdila gis nga aaya boobu noonu li mu composé moo bëri yàlla mu ne man maa bind doomi aadama si boppam maa ko teral nag te yàlla lépp lu mu bind rek doomi aadama moo ko sa gënal bi mu bindee doomi aadama la mujj a bind mu ne ko xoolal sa bët doomi aadama xool yàlla na ko teraanga ji